yéenekaay yu bari xëyandoo te njuree fi tukkee ci dialogue national gi ñu fi doon amal yéenekaay bi ne dëxën nañ ca lu bëree bari bokk na ci ñaari pon yii le Karim Wade ak Khalifa mun a def ba mun a doon candidat ci élection ñu jëm yéenekaay bi ne lu jëm ci seen mbir njiit réew Macky Sall sàkku na ci député ya ne ci assemblée nationale ñu mun cee gëstu euh, filek ay fan bokk na ci la ñu jot waxtaanee ci google dialogue national fukki poñ ak ñaar yoo xamante ne jot nañ caa juboo yéenekaay bi ne bokk na ci yàcca gën a fës modification fexe ba soppi ak càmbar article L euh, euh, bu code électoral bi mun a may ñi nga xam ne am leen teg yoon ñooñee yoon mun a teggi seen daan euh, ba ñu mun a bokk ci élection yi ñu jëm ku demee ni Karim ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall Walf Quotidien moo ñu ko yëggee yéen a kii di Le Soleil mu ngi ñuy dégtal recommandation la nga xamante ne dëxën nañ ko ci googu le dialogue national poñ ya buñ ko doon xayma toll na ci ñaari téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne ay mbir la yuñ fa jot a waxtaanee na jaajëfal liggéeyu euh, juróom-ñetti commission yañ ca jotoon euh, samp dégg euh, diggé i tamit ne bu ñu jogee ci tabaski bi dina fexe ba gindi askan wi ci coowal troisième mandat njiitu réew Macky Sall dankafu ñi nga xamante ne ñoo def naka sudul noonu ci fitna yi fi woon ci ndortel weeru juin ñooñee sax ay terroriste lañ leen duppe gannaaw seen jëf jëm ci yàq alalu réew mi ba di faat ay bakkan mu ngi ci yéen kaabi di Le Soleil yéen kaabi di L'As ne ndax njiitu réew Macky Sall présidentielle yu 2024 dina ci tontu bu ñu jógee ci tabaski bi diggee na ko gannaaw dialogue national bi mu ngi ci yéen kaabi di las yéen kaabi di enquête ne carte sur table waxtaanee nañu lu bëree bëri ci googu dal dialogue national am na ci ay poñ yoo xamante ne jot nañ caa déggoo yaa ca des itamit déggoo amu ca njiitu réew Macky Sall joxe na ci xalaatam bokk na ci tamit li nga xamante ne eh, maanaam lu jëm ci wàllub candidature am ak jiixi jaaxa gi ci am njiitu réew Macky Sall ne waxam jotagul bu ñu jógee ci tabaski bi dina ci mun a addu yéen kaabi di les échos déggal na ko ne njiitu réew Macky Sall daanaka bàyyi na euh, nit ñi ci jiixi jaaxa euh, ñu ngi ci lëndëm ndax kenn xamagul ndax dina doon candidat am déet njiitu réew Macky Sall wax na ca ne dina ci addu euh, fileek ay fan bu ñu jógee ci tabaski bi lu aju ci fitna yi fi ci Ndakaaru feneen ak feneen yoon dina ci def liggéeyam topp ña nga xamante ne seen loxo laale na ca lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk recommandation yoo xamante ne dëxëñ nañ ko ci googule dialogue national mbirum service euh, militaire obligatoire jot nañ ko caa waxtaane yéen a bi moo ñu ko yëggee yor-yor bi xëy duñu dégtal euh, googule euh, dialogue deal deal deal dialogue la ko duppee ndax waxtaan ga daanaka jëmoon ci nees mun a def ngir mun a génne Ousmane Sonko mu bañ a doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 waa PASTEF ne taxaw nañu tembe ngir fexe ba jëmmal candidature Ousmane Sonko 24 heures moom xëy taxtaan ci ay kaddu El Malick Ndiaye mi xam de wax ji wax ji moom mooy eh, kenn mënut a xañ Ousmane Sonko mu doon candidat bokk ci élection présidentielle yu 2024 yéen a kaabi di eh, Sud Quotidien ne bokk na ci la ñu ci googule dialogue eh, national fexe ba gestu ñi nga xamante ne dañoo am leen teg yoon te xool naka la ñu mun a def ba ñooñee mun a doon candidat ci élection yi ñu jëm ku demee ni Karim Wade ak Khalifa Sall assemblée nationale moom sas nañ ko ci procédure d'urgence ca na mu gën a gaawee ngir mun a gestu seen mbir Moustapha orientation yoo xamante ne moo tukkee eh, ci bile jalog eh, national bu weesoo tabaski bi nag njiitu réew Macky Sall dina jox askan wi ndewenal eh, dina wax ci coal troisième mandat yéen cabinet ana lum cay nas moom la le quotidien bëgg a xam ci jamono ji yéen cabinet di turbine ne wax ji wax ji mooy njiitu réew Macky Sall bu ñu jógee ci tabaski bi lenn rek la mun a wax askan wi moo di ne candidat la ci élection présidentielle yu 2024 Bougane Gueye Dany nag am jaaxle lool ci tekk tekkaaral gi France def ci li xew ci Sénégal ak ni njiitu réew Macky Sall di eh, doxale ci eh, mim réew eh, bokk na ci ne daanaka duñ ko seetaan ci doxalinam Bougane Gueye Dany moo ni waxee jalog bi fi woon caaxaan la dara munta jëmale Sénégal ci kanam jëmee ci dialogue boobeek ci wàllu troisième mandat njiitu réew Macky Sall mënagu cee firi askan wi wala boog mu lett leen Bougane Gueye Dany bëgg a xam ana ñi jalgati alalu réew mi euh, boobu léegi yoon mënagu leen a topp te moo de ñu ngi euh, ci nguurug euh, Macky Sall l'évidence ne Bougane Gueye Dany bëgg na itamit troisième mandat gi njiitu réew Macky Sall teg ko ci suuf duñ ko bàyyi mukk mu daganat baatu askan wi yéen kaabi di l'évidence ne lu waaju ci tolluwaay réew meek ku jéeg politique beek njiitu réew mi Macky Sall Macky Sall moom ngoy na ci dialogue am dóor leen ay gaz lacrymogène demoon ca kër Ousmane Sonko euh, ngir mun fa jëlee ña fa euh, dar boobu léegi ay euh, barrière ak takk der yafane ba Ousmane Sonko munta doxi soxlaam yéen kaabi di critique ne taxoon Déthié Fall ak ay naataangoom soloon seen dal doxi ji foofee ca cité kër góor gi waaye nag mu ñu fa seen Ousmane Sonko mbooloo gañ fa doon séentu daanaka amu fa dañ leen a mujjee joor la gaz lacrymogène Eh, ba ñu mujjee delluwaat seen kër eh, ñoom Déthié Fall ak ñam ca fegool eh, yéen a kaabi di réew mi quotidien dikkaat na ci mu ñu dégtal yi tamit lu aju ci tolluwaayu réew meek tabaski bi askan wi jaaxle nañu lool sobleek pompiter jafe lool ci marché bi njeg ma tàmbalee yokku yéen a kaabi di sursaane leneen lu tàmbale yokku bokk na ci njëgum xarum tabaski daanaka jot ci jafe na lool ndax tolluwaayu réew meek koom-koom gi borom kër yi jaaxle lool yéen a kaabi di jaaxle geneen ci borom kër yi moo di ne ña bëgg a dem tabaski ji euh, seen dëkk euh, jafe na lool ndax euh, bëgg a dem taxut a mun a dem yokkute am na ci paas yi boo bëggee dem ca Casamance fam nga génne lu toll ci quinze mille jàpp vingt cinq mille francs doon lu yéene kaabi di source fësal le peuple quotidien fësal yi tamit doomu Sénégal Dakar Saint-Louis ba Ziguinchor jàpp Thiès ñoo xamante ne lu toll nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn bëggoon a dem ca bitim réew jaare ko ci gaalu loo cooy ñu mu leen a teg loxo yenn kaay bi di le peuple quotidien moo ñu ko yëggee yéen kaay bi di stade ne ana lu tax euh, footballu ñu euh, ci match euh, Bénin Sénégal ba ci Brésil Gana Gueye ak Kouyaté seen ëllëg ci seen ci équipe nationale guinée moom la yéen kaay bi di stade bëgg xam yéen kaay di suñu làmb di ñu xam leeg moo Lo Gris Bordeaux ma seen ana kan moo ci jël tafatin yéen kaay bi di las ne lu doy am na ci tabaski bi wàccaayu tabaski bi xale bu jigéen bi di Coro Koulibaly bëggoon a bégal Euh, faram taxoon mu bàyyi ba yaay ja dem bu du Dubaï euh, mu sàcc euh, seenu oru yaay ja daal di ci wut koppar ñawal ca farwa di Ba ngir mu solu ba rafet yéen cabinet yaay ja nag bu mu yégee li ni mel la clamé ci yoon doom ja Coro Koulibaly ba ci jamono ji caabi féete na ko ginnaaw. Euh, laata euh, tabaski may laaj ndax amadu Ba farwa dina ko wutali wala boog dina ko ñaanali euh, ndewenal yema ku ñu jeexalee xëtu yéen kaay yi ci tënk incha allah dañ ci dikkaat na mu gën a yaatu. abonné si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar ci réew mi ak ci bitim